damay faral di wax ni sëriñu asraar yépp am nañu tur am sant waaye jëmm ji boo ko soxlaa mën ngaa sax bañ a jaar ci turam wala ci santam mën nga ni boroom xalima gi dañuy xam ki ngay wax boo ne boroom aliwo bi dañuy xam ki ngay wax boo nee boroom layu bi dañuy xam ki ngay wax waaye boo nee boroom gàllaaj gu foor ga ca guy ga danañuy xam ki ngay wax jërë ngeen jëf mbokki internet alu Sénégal Serigne Abdoul Khadre lañu seet si boroom Aliou bi tey seetsiwaat nañ ko ci makaanam ci cabinet bi ci daara ji ci barab bi nga xamante ni teg tànk faju fii la teg tànk aajo yi di avancé ngay xam ni ba léegi li fi maam yi bàyyi woon daf koo bàyyi ci ay loxo waaye mi ngi fi ba léegi tey dañoo seet kilifa gi seet si borom kër gi seet si borom daara ji ci bo ci xam-xam bi ci yar gi ci maanu gi ci yaru gi waaye nag seet ko ci ragal yàlla bi xam-xam bi nga suñu borom dénk faw ñu waxtaanee ko tey dama cee gis mbir mu doy waar muy këll boo xamante ni bu bees la am ay liggéey yoo xamante ni ca lañ koy wàcc di def waaye bu ma dawalee sama bët sëñ bi dama waxoon ni élection yi ñu jëm dama ciy saf sàpp faw ma dellu ca guy ga te tey dama fee gis perkal bu bari ay mètres yi mètres yi perkal ñu lëmas ko teg lu sëñ bi nar ci loolu lu doy la fekk fi parfum yu bari lu mu nar ci loolu lu doy waar la fekk fi lu ñu mënta tudd tamit lu baree baree bari lu mu nar ci loolu lu doy waar la sëñ bi lu mu ñu mës a wax teg nañ ci suñu bët moo tax kan bi ñu jëm dañoo bëgg sëñ bi teg ñu ci axe teg ñu ci leer wax ñu fan la ñu nar a jëm ak gaynde ba ci élection 2024 yi sëñ bi fan la wan di mujjee gëtëm ci mbiru Ousmane Sonko parrainage ba Bassirou Diomaye Faye mi nga xamante ni validé nañ ko ko balaa boobu dañ koy bàyyi. mariage saañu Mané bi sax nañ ci waxtaan ndax sëñ Abdourahmane junjoon nañu ko waxoon nañu ko gannaaw ba mu doon def révélation yi semaine bële dañ koy bàyyi moom kilifa gi mu nuyu mbokki internet yu koy seetaan cheikh bi bismillah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf mbokki Sénégal waaye sunu mbokki bopp mm-hmm. mbokki Touba waaye mbokki àdduna mm-hmm. bu ñu ko waxee mbokki bitim réew yépp yi safoo sunu jëmm ak di xaar sunu vidéo dugg nañu ci biir waaye lëmin dañuy beral nuyoo mbokk àll bii di ndumbulaan ñu ngi nuyu mbokki àll bi yépp mbooleem foofu nekk di dégg sunu kàddu mm-hmm. moo xam muy doomu moo xam muy mala mm-hmm. walla lépp luy nooy yàlla bind ko muy daw ci àll bi man saltige Abdou Khadir Ndiaye mm-hmm. maa ngi lay nuyu mm-hmm. di la jox wàccuwaay bi yàlla wàcc ceew mm-hmm. ba ci sànqalañ yi fiy daw oh. Lamine bàyyiwuma leen maa ngi leen di wàcc seen wàccuwaay di tàmbale sunu kàddu ci badaxtu bi bismillahi ruuxi bi xextadat ilaa kasfi asraarin bi baatini hintawat wax yaa ilaahil xalbi min baxdi mawtihi bi sukrika yaa xayyoomi xaqan taxaw yu mat yaakaar naa nuyoo boobu la mbindeef yi ci àll bi gën a dégg. waaw ndeysaan. bayit yooyu ñu jàng. Mm-hmm. ñoom lañuy gën a dégg ci nuyoo bi ñu nuyoo. kon waaleykum salaam wa rahmatullah. waa ci lañ bokk bu wér lamin yi nga àndal sëñ bi dee nañu la dee la ba dee la ci mariage Saño Mané bi nga wax ko fi. dee la ba dee la ci làmb yi nga xamante ni ñëwaguñu woon nga wax ñu ba wax ni ndam li am Modou Lo Boy Niang fii nga ko waxee woon Modou Lo Ama Baldé fii nga ko waxee woon. Balla Gaye Boy Niang fii nga ko waxee woon te tey la nga tiimoon ba wax loolu lépp nga tiimaat muy layu bi nga xamante ni lum la mës a wan wax nga ko askan wi te loo mës a wax askan wi teg nañ ci seen bët sëñ bi seet yàgg ngaa wax ne ci yàgg ngaa wax ni amoo ci moroom te bés boo ko waxee dañ koy dëggal. Ndeysaan Lamine boo ne seet damay wàcc ba tool ni Moussa Sànq oh. lañ. seet. Mm-hmm. ñu tuuti ñi may jàngal. wala bokk sax am na ci ay mag ñuy jóge fu sori di ñëw pour gëstu ko ci ñun. Mhm. ñoo ci toll. waaye man damay scanner. Mhm. te Lamine nee naa la scanner moo gën a fort seet. scanner moo gën a màgg seet scanner moo gën a leer seet. Lamine. Uh-huh. mais bi am na ñu ni seet gi du neen ndax layu bi boo ko tiimee ni ngay mel. ak ni ngay waxee tax day changé da dafa mel ni leneen moo lay dugg di la wax aajooy jaam bi nga koy wax. Lamine yàlla xam na ne day. Mhm. lay bi su ma ko tiimee. dama jële la aajooy jaam ñi waaye àdduna laay tiim. Hmm? damay toog fii di seen kii dox fu soree sori. Lamine damay toog fii di seen ki nekk ci yoon jëm si fii ci kër gi te tàgguwuma bi muy jukk Lamine lay bii su ma ko téewee. lépp luy jooy. ci àll bii ngeen ñu fekk moo xam ay jooyam lu ñu béral la mhm. wala lu muy ndànkal la ci suuf dama ko yëg di xam fam nekk di ko def oh. lemin ci gàtta layu bi su ma ko tiimee àdduna laay tiim mhm. moo tax léegi-léegi nit di woote sax di seetlu su ma fekkee ma tiim layu bi dama naan ko soxlu ma sa tur ndey soxlu sa tur taxu soxlu ma sa date de ma wax la li ci yow yépp boo bëggee ma wax la ban bis nga juddu boo bëggee ma wax la weer wi nga judd mhm. Lamine boo bëggee ma wax la sa couleur. Mm-hmm. Lamine boo bëggee ma wax la sa cuuraay wax la sa parfum. waaye boo bëggee ma wax la li nga romb li ngay jëf démb te dima ko nëbb boo bëggee ma wax la ko. ni nga fanaanoo biig te dima ko nëbb boo bëggee ma wax la ko. la nga jëf sa yaay wala la nga jëf sa baay sax boo bëggee ma wax la ko la nga jëfub jàmbur lépp boo ñëwee fi ma nettali la ko. Oh. Lamine bu dee da ngay ñàkk. Mm-hmm. boo bëggee ma wax la ko. bu fekkee daa bëgg am su ñëwee ma wax ko ko. Mm-hmm. lemin waaw. yàlla pare na lépp am na ñoo xam ne sunu borom parewul pour ñu am wërsëg ci àdduna. Mm-hmm. ndeysaan te ñu ngi sonn sëriñoo sëriñ ñu boof. ndeysaan ndeysaan. waaye boo ñëwee rek man Abdou Khadir ma wàcc la. dalal la. Mm-hmm. noppal la. xamal la na diw nga ne maa man la doo koy am wërsëg fii ci àdduna santal yàlla. boo yoretee xaalis bul ko def ci ñaan demal nga saraxe ji ko wala nga dundee ko wala nga jox sa njaboot. Mm-hmm. ndax wallaahi lamin am na ñoo xam ne lu ñu sangu sangu sangu sangu. duñ bari le mukk ci àdduna. am na ñoo xam ne lu ñu takk takk duñu bari le lamin am na malaat bu tëdd si hôpital bi garab guñ ko mën a jox du wér. waaw na. dundam jeex. lemin mhm. wallaahi. wallaahi. seet. Mhm. man gisuma ku ma ciy moromanteel de. xamaguma ko tegaguma ko bët ci internet ak te doxaguma ci mbedd ba yam ci moom teganteek moom bët Lamine waaw kay dajeeg mbubbum jàmbur di la wax kii ban xeetu nit la ban raas la fu mu bokk mi ngi dund ak dundut bu jàkkaarloog jëmmi doomu aadama yi wala mu déggante kàddu doomu aadama gi safa di wax Lamine seet maa ci man buñ ci lekk temps Lamine bañ doon nopp mu échec daf ma def si dafa ma def kaa waaye ba ma xalaatee ba xalaat gis nga nga dugg ci àll bi dëkk fi fu ñëpp ragal nga ñëw dëkk fi sanc fi ubbi fi sa daara ubbi fi sa cabinet jege guy gi loolu ba loo bëgg a def dem déy ko ko mu defal la ko ci laa xam ne kat secret bi foofu la nopp gi ngay def sëñ bi te mu yomb la lool dama ne xëy na li nga jege àll bee tax mu yomb la. Lamine man képp ku ma noobal. boo ko utilisé timis. Mhm. boo tëddee fanaan yow. boo ma wóol gërëm ma dagg sama kurus. noob ñeent fukki fa nag ay ñeent fukki guddee caaxaan la loob set da ngay dégg ñaan damay noob set suur ay caaxaan la du xam-xam. Lamine. yow bu dee yaa wax ne boo toogee fii di seetal nit ki ka nekk Amérique mën ngaa xam ban xeetu nit la ci lu muy dund ci lu muy nangam nangam nangam nga seetal nit ki te turam la la jox ak date de naissance am kay. xanaa fu waaye mën a nekk. Mm-hmm. kooku bu ci soxlaa jot war nga ko mën a nootal. ba lu mu ko wax fi sensé mu def ko. Mm-hmm. ndax na nga def. ba mën a xam mbiram. te nee nga jàkkoo la wut ak turam dong la la jox. waaw xanaa xamoo ne lu yàlla bind muy baati nooba ci gën a yomb. yàlla seede na ko. gaa ñi dañoo jàngul rek. fi ma jaar yëpp fi gën a jafe. Lamine gis nga nit ki boo xamee tabixam xam biddiwam mm-hmm. lépp lu ma bëgg a def ci moom fi ma toog. waaw ma ko génn ma def ko ko. Hmm? wallaahi Lamine. waaw képp koo xam ne danga bëgg nit nopp nit ba mu topp sa ginnaaw di daw loo ko wax mu def ko maa ci gaaw lool su ma neexee am na xawaatim boo xam ne ci loxo laa ko bind gis nga Lamine su ma la ko bindalee ci sa loxo ci sa képp koo tàpp mu topp la tàpp kese moo xam mooy góor mu jigéen koo tàpp mu topp la di daw sa ginnaaw bu xaatim bi woon waaw bu xaatim bu xasee ifaasu nag garanté ko Lamine. waaye li fekk xaatim baa ngi ci sa loxo. man Abdou Khadir maa ko garanté Lamine. am na beneen nopp boo xam ne dañu koy def ci lekk wala naan. Mm-hmm. képp koo ko jox mu lekk wala mu naan. Mm-hmm. pare na li des sa àdduna loo ko wax mu def ko te ginnaaw lay topp. boobooy ñam joodo gi pël yi yoroon xanaa. mu mm, ak wér ci man. oh eh, aywa limaam Lamine bii maa ko ci liggéey yaakaar naa gars yi xàmmee nañu ko bu baax. waaw bii nag ñi ko tax a jóg mooy koo xam ne takk nga ko ba noppi. Mm-hmm. waaw Lamine. Mm-hmm. bëgguma nag jox ko kenn ngay moy. ndax koo takkagul moom wax dëgg yàlla mm-hmm. jaayuma la ko. ndax xel nanguwut lislaam nanguwut diina nanguwut koo takkut ngay utiliser liquide bii pour dem sëy ak moom mu topp la. waaye képp koo xam ne alxayri dox na sa digg ak moom. liquide bii su ma la ko joxee ba nga def ko sa kanam sëy ak moom bàmmeel doo nga leen di tàqale boo jëloon paaka di ko rendi du génn kër gi moodu moodu yi nañ ñàkk seen jabar yi ñu bàyyi fii lemin moodu moodu yi jël seen jabar di ko yóbbu Europe nañ ko ñàkk ci liquide bii wax nga teel naa wax ba wax jotee waaw bëgguma bàyyi ba bëy way mbuus ñu may sonal lemin liquide la boo xam ne képp koo ko def dama jëlal nopp waaye noot la tasxiir la dootu la Hmm. fa laa bayre gi ngay liggéey ci njaay ba bëggoo sax mu wis ci mu tuuru ci kër gi lan moo tax ndax kër gi dem géeg dikk gi déjà gis nañ ni mu demee bayre bi bi nga xamante ni yaa ngi koy def ci njaay ba boo koy liggéey doo ko liggéey ci kër gi ndax bëggoo mu tuuru fi. <laughs> jërëjëf euh, sëñ Lamine. waaw bayra mbooloo moom mboolem kuñ ci masa a jëflanteel xam nga ne maa ci man. Uh-huh. waaw li ma ciy liggéey. cent Lamine 114 neefere bay dinaa ci liggéey loo xam ne suñu ko defee ci njaq kër goo ko suul mu fees mbooloo. ana politiciens yi ku ci mas a jëflanteeg man na yëkkati loo xam ci kaw xàmmee nañu ba bu baax. Lamine am na ñuy taxaw fii ci kaw tribune moo xam dañuy way moo xam dañuy jàng xasida wala lu ci man di doon. bu ñu bëggee feesal seeni tribune fii la ñuy ñëw ci man. Oh. <laughs> ndax xam nañu ne la bawal. gisuma ku ma ciy moromanteel. ci bayre mbooloo xëcc nit ñaara rawxaani bawal li mu daf maa moom bawal nag njare njare piir waaw ci bayra mbooloo uh-huh. soixante jënu yabooy bi ci jën ci géej gi waaw maa ngi ciy liggéey soixante téere yu tuuti yoo xam ne mën nga ko def nii sa ñaari baaraam gis nga waxtu wu ma la ko joxee uh-huh. nga fexe téere bu ne nga sexal ko benn jën wallaahi bépp palaas. Mm-hmm. boo ko suul. Mm-hmm. moo xam palaas bu ñuy jaayee la. moo xam bërëb bu ñuy jaamoo yàlla. moo xam kër la gu borom di sàkk mbooloo fu mu mën a doon palaas bi fu mu mën a nekk ci mm-hmm. àdduna. Lamine su ma la ko joxee ba nga jël 61 jën yi nga gas pax bu fekkee nga karo ko na la ko jaral. jëlal benn karo dàjj gas ba mu xóot Lamine nga fexe suul ko fa. ci kàttanu yàlla su ma ko defee bis bu buddeel see loo ci gisul wooteel ma delloo la sa xaalis waxuma ñeent fukki guddi de Lamine. Lamine. waaw bàyyi la mbooloo dama ko man ah, lemin bàyyi la mbooloo maa ci man mm-hmm. lii nag moo gën a ndaw ci yi ma ciy liggéey. Eh? ci xam-xam bu lii ma wax ne xam-xam bu weex tàll la te ñëwaguma sax ci xam-xam bu ñuul. Eh. amaana danañ ko waxtaanee beneen yoon incha allah. mais dafa am ñoo xamante ni sëñ bi dañoo ñëw ci yow rek dénk la seen bopp. ah teggeeku na. dañoo ñëw dénk la seen bopp nga yoral leen kaaraange yoral leen bayre yoral leen ubbeeku yoral leen lépp te li ñuy bari bari bari ñoom ñëpp amul kenn koo xam ne ñëw na la lii xoos na ma maanaam protection gu mat dund gu neex dund gu feex loolu nu ko nit mën a amee sëñ bi loolu nu mën a nekkee ci da nga teel ko nit ki. waaw Lamine boo gisee ma teggi leget bi. waaw nee naa la kii heure boo ko tuddee sama deret day yëngu. mbir hmm. am na de. Lamine kii heure boo ko tuddee rek sama deret yëngu. waaw waaw. Lamine xam nga lan moom a ciy yëngal. xam njëriñ xam nga ci lu bari. Lamine lii nee naa la samay gàllaaji bopp la bokkoon. Mm-hmm. ku ci am santal. yàlla seede na ne yàllaa ngi may dégg. waaw gàllaaj yi képp ku ma koy jox sax danga may fay xaalis bu mat te su ma la koy jox. waaw sama yaram day daw. Oh. day mel ni sama doom laay joxe muy dem daara wala muy jëm feneen ma war koo gëj a gisaat wallaahi mhm. ah, suy génn kabina bi ma koy def ci enveloppe di ko tëjal nit <laughs> oh. liggéey ci cabinet bi xam nañ ci dara da léegi-léegi dama koy génne ko dugalaat sax dugal ko ci enveloppe ba war koo tëjal nit génnewaat ko di ko xool ndeysaan daj ci keroog benn soxna dana ma ci waaye yow li ngay liggéey nii boo ko jaayut mm. tamit nag ban njëriñ lay am ma ne ko wallaay xam naa ne du am benn njëriñ waaye dama xam liy jóge ci man nu mu toll. Lamine est-ce xam nga lu tax sama yaram di daw. mooy dama naan man ni ma ko xamee ndax ki ma koy jox xamee ko noonu xamee na noonu gàllaaj gi. oh. oh. xam naa nag liñ ci jot a wax nii rek ki nga xam ne bëtam a ngi ciy door yam dana nekk di laaj naan waa ndomba gi luy njariñam demal toppi émission bi tey loolu tax ñoo jóg. Hmm? ñaan total lañ laaj moo tax ma boole ñoom ñaar. <laughs> rakk ak mag rakk mag. yow mi ci amagul benn te amoo doolay am ñaari nag ñaar yëpp waxtaanee nañ ko. ku dugg ci émission yi xam ñaar yëpp lu muy jariñ mm-hmm. dinaa leen ci mosal tuuti waaye Lamine rakk ak mag la waaye boo ciy am. yow mi mënut am ñaar yëpp na bee jiitu. Mm. gaa ñi bëgg nañ xaalis gépp bëgg xaalis. bëgg bayre gépp bëgg bayre. waaw jiitu. nakaaraange te réew mi daa am fu mu toll. Hmm? moo tax yow mi mënut a dajale ñaari amal kii ba noppi ëllëg lu mën a xew mm-hmm. fekk nga des sa bakkan ba mën a am bii lemin ñaar yi képp koo xam ne nekk na ci sa ndigg mm. ma seede ci yàlla na nga am ñaan total goo jëratul ngay sukkati ci sëriñ la des sa àdduna garantie total ngay am wallaahi fa nga jëre gaay boo ñëwee ma ubbi kaamil si jox la nga dem ndax Lamine. bu dee kii. nee naa la ñeme naa see garante président Macky sàll mm. su ma ko doon jox. ne ko tekki lépp loo takkoon loo sanga woon ma toj ko bu la neexee. waaw wallaahi li des si dundam ma ne ko dara du la laal loola laal yàqu. Mm. Lamine. waaw. avant Sonko di dugg ci kose bi dama koo génne na moom laa ci njëkk a yéene. ñuy seetaan ba lay xew-xew. Mm-hmm. wallaahi Lamine kii képp kuy doomu aadama di dox ci kaw suuf si. waaw war nga ko am. ndax ndomba la goo xam ne képp kum ne ci sa ndigg. Mm. li des sa àdduna. mucc nga. ku la wax ne la mën naa jéem ci sa kaw lu antu ne ko kàcc nga. waxoo dëgg. Lamine heure bu la neex génnal dox boo tëddee sa kër ba 3 heures du matin foo bëgg a dem dem fa bul ne ay agressé rek nangam a nangam loola kar ma dagg sama kurus. Hmm? du doomu aadama du gaynde du lu yàlla bind ngay lore. man maa ko garanti kii boo ko amee heure bu la neex dox. waaye bi ci ubbeeku nag. Lamine. bootal yaa ma ci gën a yéem man. waaw nee naa la saaru bàq fu mu ne lu muy new new saaru bàqara ba mu jeex tàkk mi ngi ci biir ñu jàng xam nañ lan mooy saaru bàqara. ak rido yu xonq yi nga ko defal bët yu xonq yi. waaw loolooy xibla yi ndax nee naa la àdduna ñeenti xibla rek fi am Lamine. Mm-hmm. Lamine. ndomba gi dama la moom képp kum ne ci sa ndigg fépp foo nekk da nga tiim say maas neex naqari da nga tiim say mbokk neex naqari ndomba la goo xam ne entreprise bi nga nekk di fa liggéey yow mi ko takk da nga raw ñëpp bu la neex ak bu la naqari waaye la mi la goo xam ne képp kum ne ci sa ndigg wallaahi di nga bëri bayra ba ñëpp naan yow mii foo jaar nit ñi danañ la tudd di la tudd ba jaaxal ku ne Lamin ndomba la goo xam ne képp kum ne sa ndigg xaalis dana la dikkal ba nga jaaxle kum lii xew nii toog ba mu yàgg nga man daal sëñ bi samay bunti wërsëg fan yi ni mu tëjoo doo ko du la dal mukk kii lëmin day ñëw di ñëw ba ngay jàpp na yàlla daa bëgga taxañal la sa wërsëg waaw loolu ngay jàpp lëmin xam nga lu ci dàqati mooy lan bi mooy bonus bi képp kum ne si sa ndigg man Abdou Khadir Mara garanti li feeg mi ngi sa ndigg wallaahi alxasim yàlla dana la defal ci kàttanu yàlla fan wu gudd ni suuratu bàqara mel ci alxuraan di saar woo xam ne benn saar guddul ni moom mën Abdou Khadir Mara garanté ne la léegi ba gars yi dañuy piraat yaakaar ne suuratu bàqara la lii mooy suuratu bàqara bi te aaya bootal yi mooy secret bi loolu laa doon wax sànq lañ ciy sol lamin aaya bu ne lañ ciy sol la kuñ ko jox mu defar sa mbir bootal yi door a lëmin waaw joxalewu ko kenn bépp sëriñ bu ko nuróolee man naan Abdou Khadir ma jox secret waxu dëgg. fii kon yaakaar naa waxtaanee nañ fi àdduna. léegi nag kon ku soxla àdduna. Mm-hmm. dajale ñaari. ma garanté la man Abdou Khadir na la dootoo sukk ci sëriñ la des sa dund. ñaar yi ku ko dajale dootoo ñaan looti fii la ñaan yam fii la ñaan dëppee. waaye am na ñoo xamante ni ñaan lu wuñ waaye dañuy faju si sëriñ Abdul Xaadir bëggul nit ki am aajo ñëw ba ci moom di dëppaat moo tax bi jàng jotee dafa jàngi lépp ñëw tas fànn yëpp mu teg ay bànqaas yu ca jëm wàllum cabinet bi la ñuy bëgg a dugg si te bu ma waxee ci cabinet bi dafa am mbir moo xamante ni li taxoon ñu gëjoon cee waxtaanee mooy gëstu bi nga coon doon def ak garab yu bees yi nga ci doon defaat yembul woon tey yemb na muy wàllum néew kàttan bi nga ci garab gi nga ciy defaat renforcé nañu ko defaraat nañu dose bi defaraat nañu kii bi jaaral ko ci laboratoire yi ba génn nañu ko alhamdulilah tey lañ koy njëkk présenté waat sëñ bi ci wàllu néew kàttan. ndeysaan laa ilaaha garab yi damay ree rek. Uh-huh. bés gi nag. Lamine ki yaakaar naa bokkut ak ya fi doon jaar. benn la ci réew mi. te xam nga lu ci dàqati. mooy alxuraan a ci biir di. Lamine samay garab man dama koy kaase alxuraan ba macha allah ma weer ba mu wow ma door a sol ci peket mbooleem ko am problème mu néew kàttan mm-hmm. kaay ma noppal la ak néew kàttan gi lu ko mën a sabab sama yoon néew ci dañ laa liggéey dangaa topp ñam yu bon yeeg lépp sama yoon néew ci boo ñëwee ma dindi ko ci gàttal ndax looloo waral alxuraan yow mi naan rabalaak dañ maa liggéey mm-hmm. boo ñëwee mu dañ mm-hmm. Lamine am na ay góor ci dëkk bi mm-hmm. ñoo xam ne ba tey mënuñoo am doom te li leen ko teg mooy mànn bu baaxut mm-hmm. ay wallax njaayu dee am na ñoo xam ne sax amuñ mànn yu far am ndoxu kese lañuy génn bu oyof tooy waaw mm-hmm. kii dama ko dooleel liggéeyaat ko ba nga xam ne traitement général laa ko def mooy yow mi am néew kàttan sa mànn yu daa néew say wallax njaana dundut mm-hmm. lu mu ci man di doon boo ko jëlee maa lay garanté sett suur mu set wecc ci sa kàttan ci kàttanu yàlla te jooni jooni la nag moom danga koy mos léegi sëy ba heure bu la neex waaw te dalay faj waaye boo mosee léegi da ngay sëy ba sa xol sedd guyu nga wàcc ñu jox la ndox nga naan ba màndi ñu defal la njar mu baax te boo noppee bu la neexee sëyaat ci guddi gi loo bëgg a sëy sëy ko. garab gi mën na ko. waaye Lamine jéggi na ko ñi ko mos xam nañ ko Lamine. Lamine. waaw kii mos mosaat laa ko tuddee. am na ñoo xam ne dañ koy jël traité wu ba wér. Mhm. ba noppi di ko laajaat man leen déedéet. kii moom. ku ko jël. ak loo bëgg bëgg bëgg sëy nag. war nga def sa kemtu laay kàttan ba bis bi nga ko jëloon dellusiwaat déwén nga door ko jëlaat. Hmm. te Lamine. waaw bis bi nga ko jëloon dellusiwaat déwén du tee sa kàttan ne fa xanaa kay yaay bëggul lu gën a metti rek waaw yaay bëgg yaay bëgg lu gën a metti ba tax ngay ñëw di jëlaat waaye mayuma kenn nga koy jël te bis bi nga ko jëloon dellusiwaatu déwén mhm. ngay dolliwaat mais raay mu sedd dañ ko daan dégg rek tey lañ koy doog a gis ci kabine bi garab gi nga xamante ni bàyyiwul benn feebaru yax ku rëq ku ndigil di metti ku tànk bi di metti ak lu mën di fu yax mi ne ci moom rek di metti boo ko ci raaya gis ci lëmin bul na raay mu sedd da nga naan raay mu sedd guy. guy kon. Lamine. foo jàpp ne bokk ca ca la bokk. Hmm. loo jàpp ne bokk ca rek ca la. lépp waaw lépp lu am yax ak yax ba lu mu tuuti tuuti lu mu sew sew. di metti man Abdou Khadir waxuma boo raayee 24 heures boo raayee léegi ci guddi gi tëdd nelaw bu dañut kaay ma delloo la sa xaalis Lamine ana ñi seeni tànk di metti tam sonal leen lool waa nerf sciatique yi ana ma Lamine am na ñoo xam ne ndiggu luy metti dañ naan la def na daanaka lu mat fukki at ci ñoom oh. am na ñoo xam ne moo leen tëral ba tey jii cëb laal mënuñoo liggéey Lamine mm-hmm. ñi seeni yaram di metti te sax ci ñoom ay at te pomaat bii nag Lamine ñi ko am tam yàgg ci ñoom laa gën a soxla. waaw ñi nga xam ne dañ naan man de ba may ndaw la ne woon ci man ba fi mu ne maa ngi sama quatre-vingt-dix yow laa ci gën a soxla sax. yow mi ko judduwaale ñëwal ma garanté la. Mm-hmm. lépp luy yax di metti maan Abdou Khadir maan la boo ko forootee benn guddi mu sedd guy nga topp traitement bi nag ar booy tëdd da ngay forote. waaw ba mat sept jours. li des sa àdduna heure bu dellusiwaatee man Abdou Khadir ma faj ko gratuitement du ma la laaj xaalis. Lamine xanaa garab gu baax foofu la mën a yem. Oh, xam sa kon yéen ñi nga xam ne seeni yaay wala seeni baay tànk yi metti ko sonal ndigg luy metti yaram buy metti man Abdou Khadir bu la neexee sax li Lamine. waaw liy tëj wax ji. waaw bu la neexee boo gëmut. ñëwal sama kër ma wutal la nekk. Mhm. nga foroteeg fi fanaan boo xëyee boo gisut sa xaalis mën nga ko yóbbaale bàyyi fi pot bi xanaa looloo gën a dee. wàllu hémorroïde bi nga xamante ni ba nit ñi yeewoo. ba nga indee say garab la ñu arrêté di dem hôpital di ko opéré ak nangam sangam muy hémorroïde biy génn tey boobu dong laa bëgg ñu waxtaanee ko ndax bi bi ci biir moom kenn mënatu koo waxtaaneek ak yow. waa jërëjëf sëñ Lamine waa hémorroïde bi ci bitti mooy bii am picc bi. waaw nga ko bi ci biir moom waxtaane nañ ko ba taay. Hmm. mook siti moom yaakaar naa picc yi sax xam nañu ñoo ci man waaye hmm. yow mi amee hémorroïde bi ci bitti Lamine pomade bii laa ci liggéey benn du jeex sax. pomaat bi. du jeex sa jàngoro wér. bu la neexee nga jënd may ku la soob. pomaat bi da diw rek. diw mu rees ba set wicc te xam nga lu ci dàqate. waaw lamin pomaat bi fépp fu mu jaar yow mi amee picc yi émirut bi ci suuf. boo ko ci forootee ba mu rees ba dem. Mm-hmm. li des sa dund bu fa judduwaatee te émirut fenn doo nga la juddee bi ci bit buntu suuf la mën a génne mënut a génne feneen fa du foofu. kon foofu moom bu fa émorite génnaatee kaay ma faj la gratuitement bul fay. Mm-hmm. Lamine. waaw pommade bi képp kuy amee émorite bi génn boo fa xasee diw. day wér te du delsi kon yaakaar naa laajatut kenn di dem ci hôpital pour di ko opérer. Mm-hmm. opération day matadil nit. dee leen ko moytu. ndax ku la ëpp lum opéré. Mm-hmm. gën laa doon génn wàllu nit. kon moytu leen ko bu baax a baax. li ñu gën a farlu wala lañ dul moytu mooy di wutewoo ak moom ndax bu waxee rek wax na bu ci nekkee rek nekk na ci moom sëriñ Abdul Xaadir saltige saltige dafa am loo xamante ni de yow képp yaa yaa tax ñu déplacé wu jógee Thiès ba Touba ngir loolu Sénégal dañoo jëm Coupe d'Afrique ñu soxla coupe bi Sadio Mané ñu ni day ñu ni ginnaaw suba la ñuy dem mu takk soxna ñu ñaanal ko yàlla soxnaam si yàlla na ko jig yàlla na suñu borom def njaboot gu barkeel ci seen diggante dëppam bokk ci sëy yi nga xam ne ñu ngi ko taqee ci aras sëñ bi looy wax ci soxna ak Sadio Mané bi takk gi xëy dem Coupe d'Afrique. waaw jërëjëf sëñ lemin kontaan ci lool am ci mbégte. ndax Sadio maane lemin jàngale na. waaw moo xam ne am na fu muy tàmbali waaye amul fu muy yem. Mm. te njàngale mu jàll nag. xam nga lu ma xamal ne jàll na. keroog bi mu ko defee ba bisu tey bii. dama gis jigéen ñi nga xam ne amoon nañu sàgganteeg di photo yenn foto yu bon yi di ko sànni ci internet. gis naa ne wàññiku na. Sénégal nag tàmm nañ bu ñu liggéeyee ba nga ne gon gongo. ñu delluwaat. Mm-hmm. waaye ngir yàlla rek na continuer. Lamine. Mm-hmm. Sadio Mané am na alal mais àdduna ak li ci biiram. Mhm. yàlla na ko jikk bu ko neexoon dem takki tubaab. defu ko bu ko neexoon Lamine. Mhm. mu dem xooli nitu àdduna yii. di yéeg ci kaw tribune yeeg yi kenn xamut. di wane seeni yaram. Mhm. mu takk leen. ndax nit ku siiw ku ne tuumaal nañ ko fi nag. moo tax keroog bi alxayri jibee ci gone gii. bett nañu bari. surprise jigéen ñi nag war nañ cee jànge ndeke kon jigéen bu melee ni mu war a mel. Mm-hmm. war na mën a toog ci pooju ndeyam kenn du ko xam kenn du ko dégg. Mm-hmm. te bu sëy jotee mu am jëkkër ja ko gënal. ndeke loolu mën na nekk. saajo Maana saajo Maane confirmé ne. moo confirmé ne. loolu mën na nekk. rawatina nag muy nitu alxuraan. Mm-hmm. ñu jëm kontaan nañ ci lool loolu du ci dara Lamine. waaye Coupe d'Afrique bi nag gisaguma ko. ah. Lamine. gisagoo dugg seem. Lamine. waaw. bi ñu koy gañe daaw. waaw. daaw jéeg li ñu ko may. mooy nekk benn. Hmm. wallaahi. waaw nii dëkk bi doxee li fekk mi ngi koy doxee Coupe d'Afrique di dugg fii. Lamine faaw ñu tàppe suñu xol yi def suñu bopp benn. ndax waxtasimu bi hablillahi jamiihan la yàlla wax. mbooloo mooy yërmande mm-hmm. heure bu ñu booloo def sunu bopp benn lu ñu bëgg yàlla may ñu ko waaye li fekk ñi ngi doxee doxalin bu bon bii ne ci réew mi mm-hmm. lii xew di xew moo tax coupe d'Afrique bi ah gisarax wala gisoon la ko mën a mën a ñoddi waa baal ba ci kanam rek gisaguma ko nii de wax dëgg yàlla ah. waaw waaye loo gis ci parrainage surprise bi ci am Bassirou Diomaye fay dem Idrissa Seck noo gisee kii bi ak Ousmane Sonko mi nga xamante ni boobu ba léegi mi ngi ñu ngi koy njuñ ah. ko yëkkatee rek sama xel dal. lu ci wax bakkanam. leneen mooy wax sëñ bi. kurus bu nee lu saltige bi wax. Lamine. ah. Bassirou Diomaye Faye toogoon nañu fii mën ak yow. mën la élection yi de des na waaye bu doon ci fukki fan ak ñeent yii ñu nekk de lay am mhm. man la du ci bokk ci lañ génnee parrainage am dese nga waaw kon duggaat na fukki fan yooyu ñeent yooyu moom jeex na ba ñu duggaat yeneen waaye Lamine maa ngi koy seede ci yàlla mhm. ba tey ji gisuma mbiram gisuma ak bokkam ñu gisi galgal waxuma du bokk nag waaye gisuguma ak bokkam waaw buntam biddiwam daal daal lëndëm ba tey. dañ koo ba tey wallaahi lazim. lu koy tëj. réew mi nag dafa naqaree waxtaanee xam-xam ndax faray tax. booy wax ci nituk nit. Hmm. duñ nangoo dégg. waaye bëgg naa ñu teer maa bàyyi xel. lemin am na sarax nag. Basiiru am na sarax bu a génn. xaru benn melo laa ci soxla. waaw nagu benn melo gidee mu genn benn melo. seede naa ko ci yàlla ñett yi buñ ko amee. ñu yóbbu ko ci ñetti dëkk yu bokkul làkk bu ñuy làkk. Hmm. waxuma réew de dëkk. kon loolu jërul génn senegal waaw ñetti dëkk comme tey nga mën nga ne dëkku séeréer dëkk wolof dëkk boo xam ne ay pël fa ëpp waaye ñetti dëkk yu bokkul làkk. waaw benn bu ne nga lay fa benn. Hmm. Lamine bu ñu ñëwee ma garanté la ne waxuma bokk waaye ma jox ko réew mi. moom Basiiru. wallaahi alxasim dañ dem Casamance Fuuta ñëwaat Thiès. Lamine Fall ak Folle maa ci man nag xam nga lan mooy wax ji. gis lu ma ko jaral. lemin naa la xamal ñaar. Mhm. gis nga wallaahi maa ngeek ay turu yàlla nii may wax ak yow. yoo xam ne ba ma ko denceeg léegi man nay at ba tey amaguma ci client bu ma ci liggéeyal. yoo xam ne wuy wallaahi te ba tey gisaguma client bu ma ko liggéeyal. est-ce que xam nga lu tax gisaguma client. Ah. mooy damaa gisagul lu ko jar. client boo xam ne dëgg dëgg dëgg jar na yëkkati tur wi ba tey gisaguma ko ci àdduna. dama jël la Sénégal. benn yoon de laa ko mas a waaj a yëkkati. te du woon kuy dund. Hmm. déedéet. ku ma safaraam leer naññ la woon. te mu doonoon sama xarit. boobu laa ko mas a waaj yëkkati te jotuma koo yëkkati nag waaye sama xel a ngi ci woon. ma am yeneen fiddaaw yu ma jëfandikoo ba gént ñu wan ma ne jéggal nañ ko ma tegaat tur wa waaye gis nga Lamine tur woowu dama jëlale Sénégal de waaye réew mu dul Sénégal mm-hmm. ku ma fa bëgg a jox nguur ci tur ma jox la ko ndax dana ma ko jaral ndax li may soxla pour mu jaral ma tëju liggéey tur woowu est am nga ko yow mi koy soxla waaye Lamine Bassirou Diomaye Faye mii seede naa ko ci yàlla biddiwoom mi ngi fay ba tey. Amadou Ba kon moo génn xanaa. sarax boobu nañ ko génne te woo ma bu fekkee jaral na leen bu ñu ko defee waxuma la jàll waaye ma garante jël réew mi. fu naa lu ma naqari nag. Mhm. ndax bu doon sama sago de. waaw. du am dara te dama gis mu mu jege am dara nag. Hmm? wallaahi naqari na ma lool. gis nga. am naa ci lu ne nag Lamine. que du gàllaaj la am mystique. sax Lamine. xaaral ma teg lay bi wax la loo mustaxam fii ci réew mi. waaw. wallaahi Lamine. réew mi jommi naa ci de. maa tëdd fii guddi. Lamine ñu wan may kilifa yoo xam ne. Lamine musu maa jàpp ne. kilifa yii. mbirum Sonko war na leen a jaralee ñu tëju di ñaan esegam yor kurus yu gudd te lemin bokk ci yàq boo xam ne buñ la ko waxoon nga ne déedéet. Hmm? yàlla sedd na ko. ñetti yoon a ngi nii nag yoo xam ne heure bu ñu tegee dossier Sonko di ko àtte. waaw su ma tëddee ñu wan ma leen ma xam leen lool. Hmm? ñu lamin ñu tëj di ci liggéey kurus pour ñaan yàlla bu mu am ndam yàlla bu mu am dëgg. Lamine. waaw moo tax Sonko mi mbiram lu critique la lu naqaree ñaan la. Mhm. ndax fukk dañuy defar. lëmin téeméer. yu jàng ba xam liñ xam. Lamine téeméer yoo xam ne koo ci fëgg guddi mu wax la kan mooy yàlla ak lu mu dégle ak lu mu santaane. Mhm. Lamine téeméer. Mhm. yoo xam asraar ba maîtriser ko dolli ci. da ci liggéey. waa Lamine bu téeméer dee defar fukki nekk di téeméer di yàq fukki di defar kañ lay sotti. moo tax keroog dama liggéey ba mu yàgg ma ne man est-ce que du ma bàyyi rek noppalu. ferenkulaay sama daara ji noonu Lamine réew mi laaj la liggéey looloo ci gën a ndaw Lamine ku mag hmm. ku rëy Dakar gii maata di fii guddi ñu wan ma mbiram ci lu leer naññ hmm. boppu mbaam la yanu jëm ak moom ci armeel yi te lépp ci mbiru Sonko boppu mbaam laa wax de liggéey ci liggéey bu bon safut di wax Lamine gaa yaa ngi dem ci armée yi dafa jëf jëf yu bon ñaawteef yu bon a bon pour politique kese waaye nag. duma ma dem ci guy ga de. bañ a dem. ci guy gi laa bëgg ñu tàggatoo fa sëñ bi. lëmin guy gi. dañuy dem ca guy ga. waaye kilifa gu mag. waaw Dakar. na pare biddiwam fay na bu yàgg. day dem day wuy ji borom. safut de wax. Hmm? wallaahi est-ce que du weer wi. laa ilaaha illallaah. janvier bi. safut de wax. Lamine. nañu jaamu yàlla àdduna bi jeex na ba noppi. dëgg waaye guy ga. guy ga dañ fay dem. ñaq bañ a dem. yóbbaale yu xonq yi. ak perkaal yu weex yi. perkaal yu weex yi. lemin oh soo nga koy nandalee wala deret lëmin wallaahi soow dana tuuru deret dana tuuru béjjënu kooba bi mooy dem wala béjjënu nag bi lëmin béjjënu kooba baa ngi fa moo tax gisoo ko tey waaw fa fanaan léegi mu def fa ñeent fukki guddi lëmin lëmin fanaane ca guy ga sax day bëgg a jot sàkkantumaag di fa yendu ci. yóbbu suufu bàmmeel ya di wax loola ci gën a tuuti. saabu léppay dem Lamine foofaay kër gi dëgg-dëgg ren faaw ñu liggéey te Lamine. la Lamine la ma waxoon tey laa ci gën a nekk élection yii. Mhm. bàyyiwuma koog ma sàmba Samba bàyyiwuma koog ma Demba. ngóor si gis naa ko mu jege ko de. waaye lu ma man dinaa ko ci def. xañ ko di wax. mala bum mu laaj rey dinaa ko fa tuur ren. ci taatu di wax lu ma xam dinaa ko ci def ndax lemin kii. Hmm. warut yor réew mi de yàlla seet na ruuxam àttanu ko. baatinu turam. Hmm. tabixaam rawxaan yoom nag. Hmm. taxaw na ci yor pouvoir bu raw nguur sax. waaye ruu gi àttanu ko lu laaj dinañ ko def. waaleykum salaam bu ñu tuddee guy gi mbaa ñu tudd yenn gàllaaj rek deretam day yëngu ndax xam ni mu mel ci guy gi bëri na sëriñ buy dem ci guy gi bëccëg boo nee ko fa ñu dem guddi du nangu waaye ku am fitug dem ba fanaan fa ay fan nekk fa ay fan ngir liggéey ci jaamu yàlla bi ngir liggéey ci réew mi kon xam nañ ni wax ma la boroom fit waaye boroom leneen la turu saltige bi lu ko topp la lu mu nekk la lu mu doon la looloo tax nag buñ ñëwee ba ci moom rek fekk ko mu mel melokaan bi dañuy sawar ngir waxtaan ak moom waaye buñ ko fekkee ci digg guy ga duñu mën a waxtaan ak moom ndax meneen melokaan yu xonq yi wër ko yu verte yi wër ko yu weex tàll yi wër ko perkaal yi mu ñëw di jat di fas di daaj di suul di taal di xamb ci la ñuy jaar rek jaajëfal mbokki internet Allô Sénégal yëpp jox leen dig daje ëllëg ci seen yeneen émission jërë ngeen jëf